Liberação! Liberação! Wah, ini ngeen ni tey ngeen koy gis ni police mo occupé zone bi yëpp wala ndaw ñaa ni taxaw ñu ngi toog ñu koy ak yena ouvrez ouvrez Ya, comme ni ngeen koy gisee nii yéen a ngi koy gis tahu. gars yaa ngi nii am population face à la police ñu koy Dani. nii cause bi mooy que ni frontière bi dafa war a ubbeeku ngeen koy gis nii en direct voilà doomu Antoine Diome yi ñoo fi nekk waa kër Antoine yëpp ñëw i gis ngeen lii bi yëngatu gars yi nekk fii pour marquer bi nga xam ne def nii tey gis ni ñu nekk 아, 예. ಅದೇನು ವರಪ್ಪ